asalaamaaleykum mbokk Sénégal ñu ngi fii tey ci Ngumba Ngeewul ci bis bu am solo bi nga xam ne moom lañ defal sëñ Mouride Niang mi nga xam ne moo siyaare ji woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu fas yéene koo nganale ngeen gis ñu teew fii ci këram muy koo xam ne gis nañ taxawaayam ci li nga xam ne mooy diine ji gis nañ taxawaayam tamit ci li nga xam ne moom mooy ngumba ci wet goo gis rek gis nañ sëñ murit di fa taxaw du am solo tay mu dem siyaare Muhammad bi sallallahu alaihi wa sallam tey ñu koy gàndale mu nek fi and ak ay mbokam nga nek fii ci biir and ak ñi nga xam ne ñoom ay mbokam tew fi ci bisbu am solo bi nga xamné mom lañuy def fii ci bis bi seigne mourid ñang mo nek nonu mi ngi noonu toog ñu ak délégation bu am solo bo xamné ne ngi fii ngeen gis euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo koy gunge ñuy teew fii ci li nga xamné moy bis bu am solo bi lañuy def di wax seigne mourid euh, ñu jano ki nga xam moy euh, suñu xarit Ah, ñu janoog moom mu teew fii ci li nga xam ne bisu sëñ Mouride Niang bi sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay di la jox sa wàccuwaay bu baax di wax ni li ngeen wax li def nii rafet na ndax doomu aadama lii ngeen di liggéey ci ngumba day tolloog day yaatal ndax bi ngeen jógee ba léegi toogu leen te tamit yàlla na yàlla defal jàmm ba yàlla ubbi leen xéewal ba yëpp gën a yokk ba muy ay rojo rojo ah murid nag dañ koy sant di ko gërëm. ndax jikkoom rek la ko yàlla fay jikkoom rek la ko shérif yi fay man naa ni daal shérif yi ci Adraame ñoo ko yabal ñu dem Màkka ñu ne dama seeti sama man daal loolu laa gis loolu daal laa gis a ah, yàlla nag gëmul nelaw ku def lu baax bu lu baax kon nag murid nag yàlla na ko fi yàlla yàggal yàlla may ko kattan ba mu yàggalee mébétam li nga xam ne moom li liggéeyal ngumba jërëjëf jërëjëf ngeen de kàddu am solo yi nga xam ne yëkkati nañ ko fii ci li nga xam ne mooy mooy bis bi nga xam ne moom la ñu defal sëñ Murid Ñang mu dem ziyaare Muhammad sallallahu alayhi wa sallam door a teew ci ëttam bi ñu gis ay am di jàmmam ay doomi nda papa ñu ngi lay nuyu Alpha maa ngi lay fay maa ngi lay sant di la fay di la xamal def lu baax parce que lii donc suñu fierté la ñun Murid nag moom lañ koy bàyyi yàlla parce que yàgg naa sigil képp ku sant Ñang moom diine ko ñor lii lii du chance mérite la ko trop lii mu nekk nii bi makkaam ji daa jëli kaali rek waaye du chance mérite la na ko ndax moom diine ko ñor doo ñëkk lu diine doo ñëkk lu taalibe doo ñëkk lu bëgg bokkam bëgg ndeyam bëgg ay fareeram bëgg ñëpp yàlla leen sàmm cet dafa ko juri yëpp bi ñu des mooy di ko ñaan yàlla yàlla kaali gi ràpp ndax lii yombul te askan woo xam sa askan ñëpp toog ñëpp gis gis na ko lépp jooyam yee muy jooyam jooyam mbégte la xol bee sedd bu sedd nag doon na jaamu yàlla jërëjëf Alpha jërëjëf. ñu ngi jaajëf lu baax ci kàddu am solo yi nga xam ne gis nañ ko ñu gis sama yaa ngi toog ñu gis tamit sunu grand moom it mi ngi toog teew ci bis bu am solo bi moom it ah, ñu koy jaajëfal moom bu baax taxa baay am solo bi nga xam ne taxaw na ko ci li nga xam ne mooy mooy bis bi ah, ba léegi ñu gis soxna jaal moom mu teew ci li nga xam ne mooy bis Ah, nekk koo xam ne gis nañ ko ci wàllu géew grand mooy booy Gueye Niang muy dugg sànq dama ko fekk ñëwagul ma ñëw faseek moom ci bis bi nga xam ne tey moom lañ ko fi ah, moom la ñuy defal si nga xam ne mooy sëñ Mouride Niang nga teew fi bàyyi si te yëpp ñëw teew fi tey yan kàddu nga njëkkate ci bis bi nga xam ne moom lañ defal sëñ Mouride non Mouride suma rakk la sunu ñaari papa ñoo bokk ndey ak man maay magam bu demee ba ziyaare ji yonent bi ñu ñëpp war na fi ñëw bokk moom diko ñaanal karam gi yalla na ko rappal jàmm te yalla na ko fa wat ay yoonu yoon tan fek ko tal ko ñepp ci contane ñepp ko yene wa yalla na rappal kaal gi jàmm ñi demagul yàlla na dem seeta yoon bi incha allah. waaw jërëjëf ngeen dégg kaddu am solo nga xam mom lañu defal ki nga xam moy mooy mourid Ñang ngeen dégg kaddu nga xam yëkëti nañ ko fi kon dañu dem ci rek and ak yeen ci tante bi ñu jël fa la nga xam mom lañu yëkëti ci tante bi. kon ñu dem ci tànt bi leen ñi nga xam ne ñoom ñoo fi yaaram tey ñu teew fii ci seen nga xam ne mooy defal sa papa muy bis boo xam ne ku ne bëgg na ko bis bi yoo xam ne bisu nga fii tey yan bi nga xam ne mooy defal sa papa mooy nga xam ne moom la ziyaare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen nuyu leen waa Géewul TV di am mbégte ak contentement seen taxawaay maanaam gis seen seen taxawaay si dëkk bi mboolem ku xeelo ku ne yéen a ngi si jox ay jéego pour mën ko jàllale si média yi waaw kon dañ leen cant cant goo xam daa am na tàmbali waaye amul fu mu am parce que dañoo seetlu suñu baay bi buy gàmmu wala lu mu mënti xewle dañu bàyyi seen itte jàpp si liggéey bi Baye Mouride moom daa doon koo xam ne maam sagul islam la daal ngi du tarixa moo ko ñor Mouride la waaye du tarixa ko ñor l'islam daal moo ko ñor gis nañ taxawaayam si dëkk bi gis taxawaayam si këru dëkk yi hmm. lii nag moom mënu woo ñàkk ci moom ndax ngumba gu ne koo xar xolam amoon na yéene defal ko kon nag dañuy sant yàlla di sant tamit monsieur le mi nga xam ni moom moo ko yóbbu penku te yóbbu ko penku tamit ngir politique ngir xamal ko ne ko bu doon politique moo tax mu koy def du ko def ni ngi moom politiqueul gis na taxawaayam ni que l'islam xam naa ne moo la ñor moo tax mu defe ko lii kon nag dañ koy sant di ko ñaanal yàlla li mu bëgg moo ko xam yàlla na di ñaanal ñëpp dund ba dem fa ci bàq si naa xam ne yéen ñaanal ngeen dund aji fa amiin jërëjëf jërëjëf macha allah ngeen teg kàddu am solo yi nga xam ne moom it moom it ah, baax na ko muy doom ci li nga xam ne moom mooy ah, sëñ Mouride Niang ngeen teg kàddu am solo yi nga wax fii ñu jëm nag mooy tant bi nga xam ne moom la ñu tàgge yonente bi sallallahu alayhi wa ci tant bi la ñu jëm fas yéene dugg si ci bis bu am solo bi soxna Assa yi noonu dugg si moom it mi ngi noonu door a ñëw gis délégation yi am solo yi nga xam ne taxawaay bu am solo bi nga xam ne taxaw ko fii ci am solo bi nga xam ne li nga xam ne tey moom mooy bis bu am solo bi ngeen gis sëñ Daouda mi noonu toog ci li nga xam ne mooy ndoxum zam-zam mi nga xam ne rek ku ñëw ziare si rek mu tànk jox la ci eh, gunge magam ji nga xam ne tey moo jóge ca Kaaba kay rasu yonent bi sallallahu alayhi ngeen gis ñu ngi ziar kon xam naa damay tàllal sëñ Daouda rek mu sànni ñu kàddu ci li nga xam ne tey moom la ñu defal ki nga xam ne mooy magam ji leen gërëm di ñaan di leen ñaanal nag te lii bu fekkee ni war na mën a jëm fenn ñun ñoo leen gërëm bu baax tey moom mbégte gën ta mën na raw mbégte mii ndax fan nga jógee ñu ni si suñent bi sallallahu alayhi wasallam fan nga jógee ñu ni kaabatala fi nga xam si moom mooy la nga doon dàkk fu ne nga dàkk ko fa tam ba tey jii na nga ne ko jàkk di teg sa loxo te sama mag yii di alaaji mari ñang nga gis ni photo yi di ngeen ko si gis mu raay kaaba ga mu teg loxom si kaaba ga mu fóon kaaba ga wër ba pare ñaanal ñaanal nu ngi mbëgg yëpp waaye nag euh, li ñuy gën di ko sant mooy ñu ngi sant euh, Khalifa Dia mi nga xam ne si xarit tax na si xol waaye yëkkati na biyam nag ni ko dama bu yàgg ba tey maa ngi ni nga nekk si Adramé ak di liggéeyal nga ba bëgg woon naa nga dem màkk daal ko koy jox kon nak ñu nit ay mbokkam ñu jàpp ci taxaw nañ taxaw ngumba gépp jàpp ci ndax gis nañu ñëpp a teew ñëpp a rafetlu waaye nag bu ñu nee euh, diw wala nangam ka njëkk ni bërët moom la ñuy mën a wax moo tax ñu gërëm xalifa mu noonu gërëm ñëpp nag gëmal famille bi suñu famille yëpp ñu leen di gërëm waa Ngumba yëpp ñu leen di gërëm bés bii wane na ni murit alaaji murit ñang mii nitu ñëpp la ndaxte ñëpp a teew nay xaajar nay murit nay tijaan ñu géewul bépp a teew ak li ko wër yëpp te ku nekk yaa ngi doon yéene bis bi jot ñu naan ma ndax yaa ngi dégg alaaji ana mu fu mu toll baa alaaji yaa ngi jëlloo jàmm ku ci nekk rek yenn woon yan bi tey jii lii wane waat na ko ñëw nañu tey wane ko taxaw taxawaay bu rafet ñoo ngi ñaan yàlla képp ku ko ziyaara si yàlla na la yàlla defal nga mën a dem yow ëllëg ziyaara ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën dem ak Makka incha allah yàlla na ko yàlla defal ñëpp te yàlla defal ñëpp wér faxasal ñëpp seen i bàkkaar si barke yonent bi koo xam ne nit ku woyof ñu gis ba ca euh, Kaaba ga ba léegi comme ni nga ko waxee mi ngi ñaanal waa Ngumba di ñaanal képp koo xam ne doomu géewul nga ba ñun ñi nga xam ne ñu waa géewul li ñu gën a frappé ci ñun mooy fa mu nekk di ñu ñaanal na mu xatee yëpp mu bàyyi xel ci ñun loolu lu mu wax loo xam ne lu ñu yëg la ñu rafetu muy loo xam ne tey gis nañu taxawaayam ci géewul gis nañ njariñam ci géewul gis nañ tamit taxawaay bi nga xam ne tey jii taxaw na ko ci armée ba lii fekk ko ca tey yan kàddu ngay wax li nga xam ne tey mooy doomu géewul yi loolu loolu loolu lu ñu sant lool parce que kii ku ko xool xool ma xam ni am na loo xam ne s moo xis moo fër si man sama maga ba pare ma doy loo ko lool mu doy loo ma nekk xarit kon nag képp koo xam si defal nga ko dara loo xam si man maa ko waroon a def kon ñooñu bu ñu demee ñoom ba koy defal damay sant ñooñu rawatina nag yow mii nga firndeel ni dem na ba ba ba màkk di leen woo yéen di leen ziyaare di leen sant di gërëm kon amatuñu ñun loo xam si xam nañ daal waa ngumba gépp ñu ngi leen di gërëm xam nañ ni moom mi day ba muy dem fële sama papa la fa remplacé woon 1973 bi sama papa gaañoo ba léegi ni ma nga sa armée de moom di liggéey kon bu demee ba fay am résultat kooku fay suñu borom la kon ñoo koy gërëm bu baax di gërëm na ñi nga xam si gis nañ ko xam nañ yéen a ji ko am waaye ku mën def rek ku amoon ne def yéen mel noonu kon ñoo koy gërëm bu baax a di leen gërëm yéen ñëpp nag nii ngeen ko seedale kon ndokk ba mu ko defee seen bopp ba màkk di leen xalaat di xalaat waa Ngumba loolu rek lañ doon yaakaar ci moom bu xam naa xam naa sonn na ndox si ba léegi mi ngi toog uh-huh. waaye dañuy bëgg rek mu sànni ay kaddu rek yoo xam ne mbokk yi njëwul mbokk yi nañ ci bàyyi xel ci moom ba ñëpp rek uh, di la ziar bu baax di rafetlu sa teewaay di am mbégte tamit janoog sa kanam gi di am mbégte tamit janoog yow gis nañ tax waaye bi nga taxaw ci mag di ñu bàyyi xel ñu waa Gueoulart TV ñu ngi la ci am a bu baax di jaajëfal bu baax tey nga teew fii ci li nga xam ne sa ëtt bi nit ñi doon ñaan nga fekk si ñu tey nit ñi ñëw di la ziar tey yan kàddu nga yëkkati di jëme ci ñi nga xam ñoo teew fii bu baax di dolli ci yàlla bu ko daan sant ndax ñun amuñu lu ñu gumba kon suñu gisee ay ndaw yoo xam ñu ngi daan seen doole di liggéey di askan wi ba ca nga xam ne bërëbu ñaan la faaw ñu fàttali leen ca am yaqin ni fa ñaan suñu borom dana ko nag di sant nag waa Ngumba ak tund wi ndax mënuñu leen a fay suñ ko xoolee ci bis bi nga xam ne moom la ma Serigne Touba jox di bisu Cheikh Mamadou Lamine Bara nga xam ne ren suñ ko defee dana nekk fanweeri at ak juróom maag a Ngumba ko bokk ci mos na manqué mosuñu ko jëlal kon sëñ Alpha li def. mooy dellu sant yàlla bu baax a baax tey ñaanal sunu waajur ya yàlla yóbbul àjjani kawe di ko ñaanal sunu way daw yi nga xam ni ñoom ca màkk sax fàttuma leen dama toog leen ñaanal di ñaanal sama rakk ji El Hadj Daoud yàlla guddal ndax moom daanaka su doon gàmmoo sax su waxee du ma ci tegaat baat kàddu su ñu jëlee dama koy wax tontu ñooñu rek di di ziar sama rakk ji di garmi di ko ñaanal yàlla guddal fanam yàlla yokk bu baax a baax laa koy ñaanal ndey ndey di ko ñaanalee kuuna ak ñëpp ñu di ñaan yàlla faj aajo di ko ñaan ñoom aminta di ko ñaanal samay soxna ak samay doom ñoom ñëpp di ko ñaanal sama xar yëpp nag di ko ñaanal màggatul di sama taawu yaay nga xam ni maa ngi leen Ndakaaru yàlla faj aajoom di di ko ñaanal sama jigéen ñi nga xam ni lii day témoignage muy soxna Mbéri mi ah, di soxna Ndeye nga xam ni moom dafa dem ba sama doom soxna Ndeye la ko di ko ñaanal sama soxna si di sama xarit di soxna Awa moom Cheikh Talib di ñaanal sama xarit yan ba woyof ci moom ah moom ñu koy ziar. kontaan naa quoi. sa doom baay yëpp ak Mor Diaw yëpp. waaw ñaar di ñaaral Mor baax ak ñëpp rek ak njabootam ñëpp rek waaw sama njaboot bi yéen it ngeen ñaaral ñoom it ndax lii ma sol fàtte Fall sama doom moom ma xotti papa def ko kon sant naa la bu baax fa nga toll ci xam naa ko fi nga tool ci man xam naa ko bu wér fa àll topp ci xam naa ko mais damay ñaan barka ba talaa ngeen yokk bëgg mu ma xam ko incha allah ngeen yokk bëgg ma xam kontaan naa bu wér di ñaanal sëñ Mountakha di sama sëriñ yàlla yàggal ko fi ci wér ko di ko ñaan sëñ mu teewaay bu mu teewal nga xam ne mooy Murit Ñang ci bisam bu am solo bi nga xam ne dem ziare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teew fi tey euh, tey soxna Dial yan kàddu nga njëkk tey ci bisu Murit Ñang waaw asalaamaaleykum ñu ngi ziar ñëpp di sargal ñëpp di baal àq ñëpp di am mbégte nag mbégte moo xam ne day am fu mu commencé waaye amul fu mu yem ndax yonent bi moom ku ko ziar ji rek yàlla dimbali na ci lu baree baree bari te Murit Ñang lii ko yàlla defal ba mu dem fa na ko sante yàlla sante ko ay waajuram ndax liggéeyal na yàlla liggéeyal sëñ Baara sëriñam fonki bokkam fonk diineem fonk adraame ñu bokk fa di liggéey man ak moom mu taxawal fa daal yàlla yàlla daal la taxawal ba yàlla fay ko lii rek ñuy ñaanal ñëpp nag képp ku fa yàlla woo rek nanga fa dem ñu am lool nag yàlla na kaala gi ràpp ci boppam yàlla yóbbu fa ñëpp man daal am naa mbégte ndax man demoon naa fa dëkk boobu sell boobu fa la tukki te dëkk bu sell boobu fa la tukki yam kon ku fa demagul rek yàlla na dafa sunu borom yóbbu ndax yàlla mooy woote te ku mu woote nga dem bari la taxul nga dem néew la taxul nga dem ab woote la rek fa yàlla dimbali daal ba ñu woo la fa sante ko yàlla bu baax a baax ak ñi ñuy jox paas nag ñu cay dem yàlla na yàlla guddal seen fan ku mel na Khalifa Dia ma ne mooma wan yonent bi maa ngi koy ñaanal bu baax a baax te bari na ñu wan yonent bi kon yàlla na ko yàlla guddal fanam may ko wér ñi ngi am mbégte lool nag jërëjëf waaw kon ñu ngi janook ki nga xam ne mooy cheikh bi moom it cheikh baa ngi door a dugg si teew ci li nga xam ne mooy bis bu am solo bi nga xam ne moom la ñu defal ki nga xam ne mooy murid ñang nga yàgg tàgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu jug fa mu jóge fa ñëw teew fii tey nga am mbégte goo xam ne day gis nañ sa taxawaay tey yan kàddu nga ñuy wax tey ci bis bu nga xam ne moom la defal murid ñang waaw macha allah ñu ngi leen di nuyu mbokk àddina euh, euh, baax a baax fa tabaaka macha allah ci alaaji murid ñang mi demoon ziara ji sunu sang yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa xam ne lu la te ñëpp yéen woon nañ ko ko ndax wattu gi mu wattu adra nga xam ne ñëpp loo ko defal su jugee bayt laal xaraam ñëw dana rafet dana jaaru ñun ñu takkar yonent Yàlla ma ñu teew fi sargal ko ndokkeel ko ziar ko bëggal ñëpp jot yàlla Muhammad fa tabarakallah macha allah am ci mbégte ak contentement bu baax a baax fa tabarakallah macha allah jërëjëf waaw jërëjëf Cheikh bi ñu ngi lay ziar lu baax ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne taxaw nga ko fii ci li nga xam ne moom la sëñ euh, Murid Ñang nekk ñu gis gars yi koy ziar ñu ngi noonu def ziar euh, di di di ziar di euh, nekk ci ziar yi muy bis bu am solo boo xam ne gis nañu taxawaay am solo yoo xam ne tey eh, jigéen ñi ñi ngi koy taxaw gis nañ tamit teewaay bi nga xam ne eh, jigéen ñi ñi ngi koy teew fii ci li nga xam ne mooy bis bu am solo bi ngeen gis eh, sëñ Murit mi ngi noonu di def ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk kon ñu dugg ci biir rek dem xool dem xool délégation yi seen ziar yi nga xam ne ñi ngi koy def fii ci bis bu am solo bi nga xam ne